maa ngi tudd Babacar fay di chef de quartier fii ci Ndayane ndaayaan nekk benn dëkk ci biir Njaareem nekk ci gannaaw hôpital bi foofu guy yi nekk mbaanaar yi avant mbaanaar am na lu jiitu mooy dëkk bi avant mbaanaar di am dëkk day am dëkk bi moo ñëkk a ñëw sancu mbaanaar doog am dëkk bi nag mu ngi sancu vers mille quatre cent mille quatre cent vingt ci la dëkk bi sanc woon ci suñu benn maam bu ñuy wax jarnu paat jóge woon booru siin ñëw fi nekkoon fa yoroon ay jur dem ba xejatu fa ak jur yi mu doon wër euh, feneen foo xamante ni mën na faa nekk aki i juram bon ci la jóge ñëw bi mu ñëwee di dem di dem ba mu ngi njëkk a dem fu ñu wax Sambé fa la njëkk a installé bi mu installé di xëy di wër maanaam fi nga xamante ne fa lay mën di dundale jur yi donc ci biir jur yi ni muy demee di dikk te boobu jur yàlla defoon na ci moom xam-xam mu amee woon ay nag parce que ñoom it nag rek lañ xamoon sàmm. mbay bokku ci woon mais sàmm bokkoon na ci li nga xamante moom lañ gënoon a xam bon biñ demee bu jógee saambe dem bu wotee ba ngoon mu delluwaat jóge saambe dem fu ñuy wax ngalañ di fa jóge di romb ndaayaan di dem ci kaw bon bi mu rombee di dem ci kaw ba teg ay fan bi mu egsee nag yi daal won ko ne fii dëkkuwaay la parce que ci wetam tuuti li féete ndaayaan li ko féete sow am na fu ñu doon wax ngolombit ngolombit ci séeréer ab garab la boo xamante ni garab bu lëndëm lay doon maanaam lu bëri moo koy wër ba dem fa dina jafe bon bi muy ñëw àndoon na ak xaj ndax boo waxee lekk ci jur di nga wax naan naan bi aussi amoon nañu problème pour ndox fu mu naane bon am na xaj bu ñu àndaloon ndax ku xam séeréer aussi di fayeen yàlla def ñoo boole woon ak mala boobu ñuy wax xaj lépp lu ñuy def dañ ci ànd bon bi mu ko defee xaj bi bi ñu toogee jur yi ñoo toog mar ci la xaj bi jël benn endroit dugg ci ñax mi di dem di dem di dem di dem ba suri ci biir ñax mi retour na ñëw tooy xepp bi mu tooyee ci lañ ne xaj bi de fi mu demoon ndox nga ca bon ci lañ retour na toppaat xaj bi xaj bi jiitu ñu topp ko topp ko topp ko ba fekk benn déeg mu ngi nekkoon foofu ñuy wax ngolombit moo kon ñu nekkoon fii de dëkk la ndax comme nag yi won nañ ne fii dëkkuwaay la am na signe bu ñu wone ne dëkkuwaay la ba toog nañ ndox jege na ko wax dëgg yàlla kon fii moom dëkkuwaay la loolu moom moo waral ndaayaan ci lañ installé en 1420 bon bi ñu installé nag famille bi commencé di màgg ñuy dem dëkk bi di commencé di màgg bon bi mu demee ba yàgg nag bon ci lañu am seeni cosaan muy fii nga gis ci kanam li féete penc bi ci kanam foofu la mbaanaar yi nekk fa lañ doon dencee fa lañ doon dencee seeni ñi nga xamante ni seeni néew lay doon donc euh, mbaanaar yi aussi boo gisee li ko waral boobu dëkk bi ñoom moom bi mu ñëwee ànd nag ak ay jigéenam ak yeneeni dëkkandoo ba tax famille bi gën a yaatu bi ñu demee nag ba nit ki su wàññeekoo ci lañ créé mbaanaar yi mbaanaar yi nag du ku nekk lañ fa doon denc maanaam borom barke lañ fa doon denc nit ku màgg lañ fa doon denc boobu heure boo mosaan génn àdduna boo ñëwee pour ñu denc la fa foog naa dina def ñaari fan pour ñu mën laa denc parce que buñ la dee denc de amoon na lu ñuy wax mal boo ko seetee léegi comme genre association lañ ko mën a tuddee ci fii ñu jamono bii ñu toll ñoom ñoo doon yor lu mel noonu soo amee ku wàññeeku te muy ku am barke ñoom ñooy ñëw. nga def frais yi ngay war a def ñu mën la koo dencal denc bi nag niñ ko doon def mooy bu ñëwee maanaam dañ doon jël say bien maanaam dañ doon jël sa néeg bi nga dëkk ñu ñëw tëral la teg sa lal tëral la ci lal bi jël néeg bi boobu néegu ñax moo amoon ñu jël néegu ñax mi këpp la ci kaw bon commencé mal boobu ma la wax après dañuy rey yëkk yëkk bi moom mooy doon añ bi doon reer bi ñuy tibb suuf di sotti ci kaw néegu ñax bi di ko sotti di ko sotti di ko sotti ba nga dégg ñax euh, néeg bi commencé di damm ndax pois bi di sotti di sotti ba gisatuñu néeg bi jal ko ba boo taxawee doo mën a séen sa kanam noonu lañ ko doon doxale mais du ku nekk moom lañ fi doon denc donc borom barke yi ñoom lañ fi doon denc te bu ñu leen doon denc itam noonu lañ leen doon dencee. bon ñaan yi ci séeréer lay doon yàlla mooy maye dañuy ñaan yàlla li nga xamante ni moom lañ bëgg ñaan ko ci barke ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon doon fi dund dund bu sell su ko defee yàlla def ñuy may. waaw c'est c'est déjà classé classé nañ ko. presque tey fi ñu toll mën nañ ne ñun Fayeen yi ëppleetuñ ci kenn parce que c'est un site classé donc loolu euh, def nañ ko ça fait des années classé nañ ko donc kon loolu wane na ne dem na ci patrimoine UNESCO fii ci Sénégal li ma mën a jàpp mooy benn la fi lii daal li ma ci mën a li ma ci mën a jàpp mooy boo demoon euh, comme Chine amoon nañ yu mel nii xam nga ñu ngi fi nekkoon en mille quatre cent vingt donc pour expliquer ban at lañ fi jóge maanaam dañ doon dund di dem di dund di dem mais sit bi depuis biñ fi jógee ak léegi war naa ñi bañ fi gëjee dëkk ak léegi war naa def deux cents ans ba kenn lañ fi bàyyi woon muy benn maam kooku aussi itam bi mu fi jógeeg léegi war naa def trente ans trent ans léegi donc kon kenn dëkkatu fi ñun ñoo dëkk en face site bi itam fii lañ dëkke woon ñun ñëpp bi lotissement bi ñëwee ci lañ ñu déplacé recasé ñu fii ci wetu sud bi li féete sud bon tomb yi lu mot quatorze mu ngi fi am na jigéen am na ay jigéen mais li ci ëpp ay góor la mais am na lu mot quatorze tomb yu fi nekk waaw. fii ñu nekkaat aussi moom mooy mbaanaar yi mbaanaar yi moom mooy fi nga xamante ni fi lañ denc suñu maam yi comme ni ma ko waxe fii moo nekkoon seen armeel yi bu njëkk boo gisee jal yi comme nii mu demee boo gisee jal yi comme nii mu demee di nga xam ne lii. ay jàll la woon mais yàggaay bi mu yàgg tax na ba dem na ba lépp dafa maase ngelaw leeg yooyu ak yàggaay bi moo tax mu maase mais ay temps bi muy doog pare booy ñëw ci dëkk bi ak côté boo mën a jóge jàll yi ngay njëkk seen parce que doon na dem lu war a tolloog cinq mètres ci kaw donc kon loolu moom moo ko rasé mu mel nii mu mel fii itam comme ni ma leen ko waxee maanaam du woon ku ne moom lañ doon denc fii parce que tey mën naa ne li ëpp denc ñu leen fii kon donc borom barke yi ñoom lañ doon denc fii ndax borom barke mooy ki nga xamante ni mën na boppam ci côté bu ne ndax tey buñ ko mosaan di def yaakaar naa li muy yóbbu ci jamono yooyu boo ko évaluer woon tey dina mot million ci li nga xamante ne ay frais lay doon parce que tey mal boobu ma la leen waxoon mal boobu loolu rek moo nekkoon liggéeyam bu nit faatoo ñoom la invité ñu ñëw yendu fi indi néegam teg ko ci kaw lalam mbokk yi ñëw di jël ay bien di ko yóbbante comme niñ koy waxee parce que séeréer bokk na ci aussi ñu njëkk a gëm ne dekki am na ndax nit ki ki faatu nga yëkkati dara di ko yóbbante ca ña dem kon jàpp nga ne ña dem moom dekki am na kon moom moo njëkk a d'accordal yàlla ne nit bu bu dee ëllëg day dekki aussi ñu ci doon yor ay ay ay gis yu rafet ndax ki ngay yóbbante jàpp nga ne mu nga ca jàmm fa mu nekk donc loolu doon nañ ko def bu ñu la ñëwee def ku nekk loo yor ne lii kat maa ngi lay yóbbante pour diw say biens yi nga amoon yëpp itam moom lañ koy boole teg la ci kaw lal bi jël sa néegu ñax këpp la ci kaw après mal bi ñëw ñuy tibb suuf di sotti di tibb suuf di sotti yendu fa def fête bu mag presque deux jours rey seen nag def ci ay cere boobu añ cere lañ ko doon def di ko añee di ko reere def ko comme genre fête ba ba beneen di am donc noonu noonu lañ ko doon doxale tey ku ci nekk tey sa famille mën naa ne nekkatul ndaayaan ndax màgg nañ barke ba sanc nañ yeneen dëkk yoo xamante ni boo weesoo gosaas jëm booru mbos dëkk boo fa romb li ëpp seen cosaan fii la jóge ci ndaayaan bii la jóge nekk foofu donc kon yi nii ñu ko gisee dara la ay nit ñu baax ñoo fi tëdd ay gor ñoo fi tëdd ay nit ñu gëmoon yàlla démb fa seen xam-xam tolloon ñoo fi ñoo fi tëdd ay nit ñu amoon xam-xam ay nit ñu yàlla wormaaloon ñoo fi nekk kon ba léegi wormaal boobu mu ngi fii. mu doon site historique. ñu hmm. moderniser. yéen ban message ngeen di lancer autorité dëkk bi ci wàllu modernisation boobu noonu. bon lancer bi ñu ciy lancer. surtout ci ministre Dame Diop comme ñoom ñoom ñu nekkal fii seen loxo mën a jot fu ñu jotul ñu ngi leen di lancer message ñu gën ñoo jàppale ba ñu fermer ko en entourer ko gën koo valoriser ba yu bëri yi nga xamante ni mu ngi am ci biir te méngoowul ak li fi nekk loolu mën a dañ te xam ne tey buñ ko defee itam defaluñ ko waa ñi sant fay kese askanu njaareem yëpp lañ ko defal parce que lii foog naa buñ ko gënee jox jëmmam dinañ dem ba ay nit dinañ jóge feneen ñëw di ko visiter si te gis nañ ne hôtel bi ñuy tabax dina méngook moom am na loo xam ne buñ ko defee jox ko li mu war li fi nekk ñu génnee ko dëgg ndax tey lii ñu jot a génnee lu tuuti la ak li nga xamante ne moom moom moo fi nekk ku ci nekk am na côté boo xamee am na ñeneen ñoo xamante ne xam nañ lu raw loolu su boobaa dinañ fi mën a jëlee loo xamante ni ëllëg njëriñu njaareem lay doon kon maa ngi leen di lancer message ñu jàppale ñu ci site bi nga xam ne jàppale ko moom mooy jàppale ndaayaan moom mooy jàppale waa njaareem moom mooy jàppale Sénégal yëpp parce que boo wëree Sénégal ba mu daj lii fii rek la am njaareem ci quartier bu ñuy wax ndaayaan gannaaw hôpital Louké. ñu ci site bi ñu ñaanloo fii ma taxaw ni mooy fii la mag ñi doon taxaw di ñaan am na benn ëkk bu doon nekk fii ëkk bi souvent da doon tëb génn jekki-jekki am temps mu demaat duñ ko gis donc fii mooy fi nga xamante ni bu fi juróom-ñaari fayeen yu bokk ci jarnu paat direct toogee ñaan luñ fi ñaan yàlla de leen koy may ñaan bi nag comme niñ koy waxee du lu ñuy jat du lu ñu wax leen parce que ay nit ñu baax a fi dëkkoon ay nit ñu baax a fi nekkoon liggéey fi lu baax nekk woon fi seen ngor ak seen jom te loolu bokk na ci yàlla gënoon a bëgg ba tax bu ñu fi toogee ñaan rek ci barke ñooñu ak barke penc bii ñu nekk yàlla day def loolu tey bëri na ñoo xamante ni ñu may dégg jaar nañ fi ñu ñaanal leen la ñu nekkoon yokku ba ñu yëg ko donc kon ba léegi ñaan yooyu ñu ngi fi mais du du n'importe ñii ñoom ñoo ko mën na def. wante ñoo ngi ñaan yàlla barke sëñ Touba bi nga xam ne moo ñu jàppale woon ci foofu ci mbanaar yi ndax sëñ Touba ñëw na ba fii ci kër gi. Mm-hmm. ci mbaanaar yi ndax moo boobu. aj média yi la doon seet si aj média yi sëñ borom gaawaan moo ko seexaloon dégg nga mm-hmm. ah ba tax na euh, lu sëñ Touba euh, bëggoon rek sëñ Modou Fay Ndaayaan ak aj média yi taxaw ci ñooñu ci waa mbaanaar yi la dégg nga ah, tey itam bi aj média yi gaañoo sëñ Touba moo yebal ay taali ñu ñu ñëw tibb ñëw tibb suuf ne ko nañ ko ber fële ndax kon moom xes xesoon naa tuub ndax boobu itam tuub tuubeen bi bariwul boobu cosaan bi taxul mu bari ay kii ñu dem ber ko fële ci armeel yale ñuy ne armeel musulman boobu waaw bii nag armeel cosaan lañ ko defoon daal armeel boobu comme nit ki dañoo jóge woon booru Égypte ak yooyu yëpp am na yoo xam ne sax mënuñu ca sori ndax euh, sunu kii mais dégg nañ ci daal ni ñu doon denc ay néew ci fii ci mbanaar yi waa dëkkin bi day wax dëgg yàlla fii daanaka benn kër la benn kër beneen baa nga fale ci boo boo boo gënee boo gënee kër limanel kër Cheikh fële ñu koy wax euh, dëkk bi euh, booru booru Pataar su ko defee boobu ñuy def boobu buur buur yi dañuy dañu dañuy dàq nit yi bu ñu bu ñu daqee ba jot ku toll ni yow boroom doole ñu dal koy yeew jaay dem jaayi ko te ay mbokkam di ci mën dara loolu fekk nañ ko fi wante bu bu loolu naroon na am day am ñu jóge foofu daldi yone xale bu jigéen ne ko ah gawaar yi day war nañu su ko defee nag ñooñu dal di xale bi bu ñëwee ñu daldi alerte waxambaane yi nekk fii ci kër gi ndax boobu benn kër benn kër gi rek moo am fii balaa nga koy gisati dinga dem ba Sambé dégg nga bi mu ko defee ñooñu de de am nañu nag base boo xam ne benn daqaar boo xam ne dafa amoon ay dëdd wëral wërali ko su ko defee nit yi dal di dugg waxambaane yi dugg foofu dégg nga ñu ba nga xam ne gawaar gi jaar na fi gis ay mag comme mag moom soxla soxlawuñ ko soxlaatuñ ko dara Hmm? ñu dal di koy ñu daldi jal hmm. seet fu ñu mën a gise ay waxambaane wala ay jànq pour mën leen a noot takk leen dem yóbbu hmm. loolu daal amoon na fi fekke fekke fekke nañ ko fekke na euh, fekke na fii mbaanaar yi euh, boo deggee ñuy wax mbaanaar bu nit gaañu woon dañuy ñëw bale foofu ba mu set ñu daal di gas pax bi pax bi nag euh, du sax wax dëgg yàlla bu njëkk ni ni ñu ñu suulee jullit yi fii ndax pax bi da doon jàkkaarloo ak penku su ko defee bopp bi jëm sow dégg nga su ko defee ñu amoon na ay bassin ñu lal ci pax mi dóor koo tëral am na ñoo xam ne dañu doon ne ñu suul ñeen ñi ne ne duñ ko suul mais dañuy jël ab néeg këpp ko ci ci ci mu tiim mu tiim pax mi su ko defee nag dina am ay waxambaane yoo xam ne dañuy def comme daayira comme liñ ko mën a euh, toléré ñoom ñooy yor ay boobu peel sax amagul mais am na ay bant yoo xam ne dañ ko doon yët ba mu def ab sugg su ab sugg comme kompeel la ba tey fa fu ma nekk nii ci jigéen ñi ñuy ñuy togg dañu dañu am ay ay bant yoo xam ne dañ dañ koy far di jën ci lawbe yi di ko jëqatee ci seen maafe bekk yu demee noonu yooyu nag yu mag la woon ndax moom lañu doon gase seyaan seyaan boobu jamono googu ñoo fi ëpp boobu teen bariwu fi su ko defee ñu daldi di tiim tiim di gas di sotti ci kaw ba néegu ñax bi boobu ba muy muuru ñooñu nag bu ñu paree ki nga xam ne mooy papaam walla ki nga xam ne mooy jerbaat yi ndax boobu doom du du doon baayam jërbaat mooy doon baayam dégg nga su ko defee jërbaat yi ñoom ñooy jox ñooñu ab yëkk ab yëg pour ñu mën bu ñu demee ñoo xam ban bés lañuy jàpp pour mën koo feetoo dégg nga bokk nag ak euh, na nag wi nga xam ne moom la ñuy rey pour ñoo ñu encore reere ko ci euh, mu euh, door a jàpp sarax bi saraxu dëj bi ah ñu ne mbanaar amoon na yeneen fii wante nag dañoo mujj dem bërës yi nag boo gisee tollu woon na noo xam ne man à cinquante cinq laa dugg école wante pour boo wàccoon école ba nga jaar si bii ci biir arbel yi da yéeg ba mu mel ni ab ab nga door nga nga nga nga nga door a jàll. ñaan yi wax dëgg yàlla dañuy jàpp ay dat am na am na bés boo xam ne bu fekkee ja kii nañu am na benn bant boo xam ne day. jékki-jékki rek génne ci suuf si hmm. bu génnee ci suuf si bu boobaa nag ah ñu ne a ah, gan bi ñëw na su ko defee ñu daldi koy tuur soow hmm. bu ñu dajee ci bés bi boo ngoon jot ay booru quatre heures cinq heures noonu dañuy ñëw jàkkaarloog ma fi mu nekk daldi gas ah, am na pax bu ñuy gas ba mu kii dëng foofu bu fekkee ñeent comme ni ma jàkkaarloog yow nii nga sant fay ma sant fay kii sant fay ba ñeenti nit lu ñu ñaanal nit de ci pax bi day am. Mm-hmm. boo bëggee mu yéeg mu yéeg boo bëggee mu wàcc mu wàcc boo bëgg ñaan bu nekk ku bëgg am wër lépp dañ ko ciy def. ñun de wax dëgg yàlla xeebuñu kenn. ku ñu jàppale itam ci ci ci lii ñu lii ñuy def ak euh, di ko kii sunu doolee ko mottul wante tàllal nañu fépp ndax commencé woon nañu piqueté garab yi mm-hmm. ni garab gu nekk turam ak ak numéro ba mu des mbaanaar yi demoon nañu boo commencé pour euh, mbaanaar yi yi ñu jot a euh, kii ñu ñu ñu mën faa piqueté benn bu nekk ñu mën koo renouveler euh, defaraat ba ba ba nga xam ne. touriste bu dee touriste bu dee fen fépp ndax touriste yi daan doon ñëw ba fii.